mbokk internet yi dañ leen ak jàmm série Adja bu Patisen Sène ak Marodi TV daanaka fu mu toll nii ñëpp liñ doon wax ci suuf ne boo moytuwul événement lomotif yu duudu ak ki nga xam ne moom mooy ngóor dina répercuté nag ci li nga xamante ni moom mooy réalisation série bi xawatina ci saison yu bees yi nga xam ne mooy ñëw ñu bëri doon wax ne duudu ak ki nga xamante ni mooy ngóor boo moytuwul dinañ leen retiré ci li nga xamante ni moom mooy série bi ci at yi nga xam ne mooy ñëw loolee nag mi ngi ci yoonu am ndax bu ñu ñu nag doyloo événement yi ni muy amee jamono ji ginnaaw lomotif yooyu le fu mu toll nii ci at bi daanaka buñ ci daan toll Siré Adja doon na am saison bu bees boo xamante ni dinañ ko commencé diffuser bu nekk ca TFM nekk ca 2STV nga xamante ni fa la série bi mujjee woon dem waaye nag ba léegi gisaguñu benn nag tournage boo xam ne am na ci wala bokk épisode boo xamante ni diffuser nañ ko ci Siré Adja bi le loolee nag bu ko daal di nag nemmeekoo ba noppee ki nga xamante moom expliquer lépp ndax nag naam sa xawante wuñu mook ngoo ci seen vidéo le motif yi nga xamante ni nag moom la ñu doon def ñu daal di gisoon nag si weer kese lay toll ci ñoom ñaar ñi ñu daal di nag bokk li nga xamante moom lañ doon doon doon reproché ginnaaw duudu mi nga xam ne dañ ko defal appel vidéo mu daal di nag wane ay awraam yemuñu loolu ki nga xamante ni moom mooy duudu moom itam ñu gis ko ñu piégé ko mu daal di wane awraam doon ko séq ak benn xale bu jigéen boo xamante ni nag dañ doon wax téléphone ñu gis Doudou wane kanamam wane léppam ngóor itam lu nu mel la daal di def mu nekk loo xamante ni nag dina impacté bu baax a baax série bi ndax nag euh, Patisen seen bu ñu fàtte nag dafa bokk ci benn filiale boo xamante ni nag ci wàllum agroalimentaire fii ci Sénégal nag bu ko mënul cité mu nekk daanaka bokk na ci nga xam ñoom ñoo jiitu ci wàllum agroalimentaire te lii euh, mën na daal di tàccal bu baax a baax seen wàllum nag communication ak tam image yu Patisen bile ndax partenaire yi te loolee nag ñoom ñi nga xam ñoom ñooy waa Marodi sax xëy na sentiroon nañu ko ci bi ñi li ñu mel daal di nag amee ndax nag vidéo yi moom tasoon na te itam foo ko ci internet bi jamono ji dinañ la ko retracer même bu fekkente ne retiré nañ vidéo yi ci réseaux sociaux yi en tout cas daal li ñu mel daal dinay impacté bu baax a baax a série bi di Adja nga xam ne daan nañ ko xaar ginnaaw recette yi nga xam ne doon nañ ko ci joxe sax moomoon doon na am eh, te ñu doon ci nemmeeku ki nga xamante ni moom mooy waaju baax wala boog jogee seen ni mu ci daan nag mel fu mu toll nii ñoom ñi ñëpp boo moytu daañu dem au chômage bu ci doonul lekk ci mel ni Elena ak Pathé Sène ñi nga xamante ni nag amoon nañu yeneen i série yoo xam ne ñu ngi fa doon produire ku ci mel ni Adja Ami am Mami ñoom ñi ba ci Alima nag boo moytu dinañu dem ci chômage ndax duudu ak ki nga xam ne moom mooy ngóor nga xamante ni nag seen nafsu ak nag li nga xam ne defoon nañ ko ci seen vidéo